ne joxe nañu résultat yi boobu ba léegi gisuloo kenn ku bokk ci kàngam yi ngànk benn bokk yaakaar wala majorité présidentielle tëb di jubile xëy na am na ci gox goxaan yi mais équipe bi gisuloo kenn kenn tëb di dal te loolu bokk na ci li dalal dëkk bi ndax lu mel ni soo ci génnee am ndam ngay tëb di tëggoo ko bàkku da ngay gën a tàngal xool ñu ko séqal kon nii président def ñu ànd ko def lu rafetlu waaye itam maa ngi rafetlu taxawaayu Idrissa Seck di rafetlu taxawaayu usmaan Sonko di rafetlu taxawaayu euh, Issa Sall ak Madické ndax ñoom tamit ak ku leen mën a xelal ku leen mën a yedd ku leen mënti ñaan am nañ taxawaay boo xam ne bu fekkoon ne donte dañ leen gañe gañe bu sell ñu taxaw di bañ ko yu kon tam dëkk bi dafa yëngatu kon amee nañ leen ngërëm di leen wax ne seen place ci réew mi mooy fa ñu nekk ay nit wóolu leen war nañoo taxaw fexe ba li naqari woon nit ñi wala ñu ñu bëgg ko te président defu ñu ñu ñuy des di fexe ba loolu dugg ci topp président bi ñu fal ndax ñu bokk liggéey réew mi. foofu laa jëm ndax dialogue bi président woote taxawaay bi ñu taxawaay ci tàmbali bi nii moom li mu wax mooy xolu waxtaan wi mooy ñu génn ci élection mu ne gars yi kaay ñu toog waxtaan. ci biir waxtaan mi mu ñaan président Abdou Diouf wax ne Ablaye Wade xëy na am na ñu bari bari sax tudd leen ñoo xam war nañ cee bokk war nag loolu day mën a nekk ñi nga xam ne ñoo gàddu. baatu lu tolloog 42 pour cent ci Sénégalais yi voté ñu foog ñu bokk ci pour mu jariñ kon loolu tam maa ngi ñaan ñi nga xam ne tudd naa leen ñu defal seen xol bañ a déglu kenn ginnaaw résultat yi génn na ba pare leneen loo fi def rek day yàq li nga liggéeyoon man nag sama wàllu bopp maa ngi ñaan lii président taxaw ñëpp dugal ci seen loxo te man li ma ci mën ak ku mel ni man dinañ ko ci dugal. ndax ñu bokk liggéey mais bokk liggéey ak gi nag bu ko kenn déggee ne bàyyi li nga ne ñëw ci gouvernement loolu day yàq démocratie nu ñu toog préparé ñu nga jëm élection municipale mais élection municipale bu ñu séddoo maire yi ku nekk liggéey fa nga liggéey loolu mooy démocratie parce que tam boo amee ni ñu toll noonu nga xam ne boo boole li Idriss Seck am ak Ousmane Seck ak Ousmane Sonko ak ñiy des mu ëpp un million six cent mille mais ñooñu. war nañu am foo xam ne fu ñu liggéey la wane seen programme te loolu ni président Macky Sall dal na sama xel ne loolu dañ ci jëm quoi yàlla na yàlla séddale yëpp ñu ànd ci réew mi bokk ko quoi. yéen tamit yéen tamit ñu ngi leen di remercier parce que wax naa ci benn journal tamit ñun ñëpp ñu nangu gore dégg naa benn waaye mu ne Sénégal dañu war a jàng bu ñu wootee ba ngoon ñu gën a résultat yi ñëpp xam nañu ne Sénégal fii mu toll ci Afrique Sénégal rek ngay wote taf résultat yi ci buntu bi 6 heures li ci des kay mooy loi bi nga xam ne moo bu ñu wotee foog ñu yóbbu ko cour d'appel loolu ñu war a bokk toog wax ndax ñëpp mën nañoo d'accord ak journalistes yi ak instruments yi bu ñu wotee dimanche altine lu mu guddi guddi ñu gën a yëpp résultat yi kuy def recours na nga def ko ci ginnaaw loolu mun naa nekk. waaw. <laughs>